Gambi siin seena si bau jande mbom ne bii baan tandu njega meeka kam ngal ne ngoosi waaw waaw biram bi siin seen tandu njega meeke nga sotee ko eh yaa ngi yàq njarwaay boo ma ci mayoon guux ma jël. biram bi si ngi noonu. mbam ne bii ban Papa Ngane Sokh Sokh a siɓaw jan Sokh Sokh a siɓaw jan de fii nag diwaanam la fii secteur la Papa yi sa Papa Ngagne Sossokh Djily Sara ay waay moom da koy yëngal le ですがんばん中のバッター。 Cheikh Ndiaye Dondé Maayo waaw mais saaku yi kii hee baaboo babong ini nii doomu ñoojoor baa ngi nii baaboo ñoojoor leesi leer o gandum Thank you. aca Ngor Ndangane a ngi noonu Ngor Deg Foy wala Ngor Mbin Jaab magu Njangar Fay baa ngi waaye magu baabu baa ngi nii moo wane bi xale yi ñeme Ngor Mbin Jaab ayca on a 10 a noonu nee na leen na bar cey ngor mbin tiyaab saafa ndoxe ngoog on a dix borom sali borom mbuur ca doomu ko ma mooy bàyyi noonu di jeengi nii waaw di jee daa wàcc si mbapat bi nee na wala min gaay dañ maa bañ a aca Ibou Ndiol ngi noonu goneek mbuur bi Wablé Soum Sarr looloo ko suma bakkan jëm naa Ndiakhate Mbodj mooy wax loolu. waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen ah tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing ah Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibëri yi Pibëri yi nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen ak yeneen ah dañuy dugg si biir. jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yi nii ñoom ñëpp dañ koy joob ah caméraman ñu dugg si biir pibër yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf ah. fii mooy pibër yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette ah carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job Aïcha Gaye ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibéry yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci ci place bi ah. teel ñu ko doon euh, expliqué gars yi. Mm-hmm. naa ñëpp waa Sénégal waa jaspora surtout. ñuy suivre euh, Lamine TV di ko béggee bu baax. donc fii mooy Pibéry ah. donc euh, li ngeen di gis nii. mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp. Mm-hmm. ay flocage t-shirt. Mm-hmm. moo nekk nii. ay dimension bu ne am na taay bu ne ci xalé ba ci mag li aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC sen photo pour sen photo salon yeeg yoyu donc li da ngeen koy am euh Chac, cag même pas une heure de temps ngeen jot ci ah voilà légui euh, aussi bu loolu wesso am nañ euh, li nga xamné moy mooy pibori mag Li aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc euh, magazine mensuel là voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibori defar restaurant yi mhm. am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yi mhm. menu yaa ngi nii dañ koy defar mhm. tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires ay panneaux publicitaires carte visite. Mhm. ay bannières. Mhm. ay euh, autocollants. Mhm. ay porte-clés ay cases. tout cas dañ koy defar fii nii. ci support ak yan support ngeen di bind parce que dégg naa dañuy bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay cases ay plateau ay aussi mu ngi euh, festif Saint-Valentin bi. ñi nga xam dañuy bëggante dédié Lamine TV Benny. kiiwam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était sa embalage bi aussi am nañ beneen euh, kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy euh, emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib élèves yi aussi pour impression ay photocopie bien sûr photocopie dañ koy def euh, impression numérique le li nga xam ne tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam affiche bi gën a A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà. aussi euh, maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw bi am étoile aussi disponible na pi bëri. Ah, yaa ngeen waa di bëggewaat Lamine TV bu baax ah, ci visite bi. Mhm. Euh, ci confiance bi aussi. Mhm. parce que gis naa gis nañ liggéey bi muy def bu baax ci Petite Côte bi. Mhm. ñoo ngi koy jaajafal mu doon ay Lamine TV yoo xamante ne. fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone waaw adresse bi fii euh, mu ngi nekk en face. Euh, centre de réadduction. Ouais. centre de réadduction donc numéro de téléphone bi mu ngi nekk cent 77 275 96. 75. fii ci Nianing fii ci Nianing. dispo diggante Joal ak mbuur ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf jaajëf